lu yées tuuti junni ci ay njaboot la jébbal ay ndimbal moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ministre conseil bi doon amal ndaje bi ci biir Touba fekke woon ko ay kilifay politique bokk ci APR waaye ci Benno Bokk Yaakaar honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga wax ci turam. yàlla def na nga ñëw jàppale président de la république dama wax gars yi ne leen bi ñuy jóg ñun di jàppale président Macky Sall. ci Touba soxla nañ ku mel na yow mu jëw jàppale président Macky Sall bi nga xamee ne koor gi démarré na nga woo ñu téléphone wax ñu sax xalaat bi nga am ci jàppale ñi nga xam ne président de la république daf leen a bëgg a jàppale te nu dëkk biir Touba. ku ne wane nga sa bopp ni nga ko war a wane li ñu wan war mooy suñu kaadar yi ñu am ñu wan ko état bi wan senegal ne am nañuy cadre te cadre yi fi nekk yaa ci jiitu ci suñu parti. may indi nag kàddu yoo xam ne sëriñ bi moo ma ko yóbbante dafa ma wax ne mi ngi sant responsable yi fi teew di kilifa yi di góor di jigéen di sant ñi nga xam ne parti politique la ñu yor ñëw teew ci jotaay bi di sant responsable politique yi ci département mu ne it mi ngi sant président de la république li mi sant président de la république mooy président kóolute gi mu am ci moom ba woo ko ne ko ñëwal nga jàppale ma jaar ci ay kilifaam wax ko mu doon lu rëy ci moom ay kilifaam wax ko ne ko président de la République nee na daa bëgg a jàppale ma mu doon ndigal ci moom loolu moo ko boole ak président Macky boole gi mu ko boolee moom nee na mi ngi sant président Macky ci kóolute gi parce que bu ko joxutoon dara it moom dana ànd ak su ko joxutoon dara dana ko jàppale mais bi mu ko defee ministre conseil da ko ciy sant parce que loolu teraanga la joo xam ne jox na ko ko muy ab sac ci moom di xam la ne bu demee tey bay woote lu mel ni président Macky Sall moo tax bu demee tey bay defee lu rëy nii président Macky Sall moo tax kon nee na mi ngi koy sant di ko gërëm. mu fes fa lool teewaayu waa parti réew mi ci boobu dajee waaye it waa APR kenn ku ne yëkkati kàddu delloo njukkal président de la république. du ragal li ma gën a neex ci doomu aadama lool ci la bokk parce que du ragal lu ne dégg na ko ci lu ne gis na ko ci dafa foncé. te tim jàngal nañu ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ nekk ci dëkk bi di jaxasoog ay politiciens wala yu mel noonu pour wan nañu nañu politique mën nga koo def te du la yàqal dara loolu la nit ñi war a gëm war ko comprendre nga nekk Mbàkke wala nga sant Bousso wala koo manti doon wala si mën ngaa politique kenn mësu ko dégg mu wax lu ñaaw wala mu def lu ñaaw man su ko defoon tey jotaay yu mel ne sax su ma ci wooyu du ma ñëw parce que doxuma ci yooyu yàlla xam ne loolu def ba léegi mësumaa gis mu wax lu ñaaw wala mu def ko boo ko waxee sax dama naan ko parce que politique boo xam ne doo défendre sa bopp wala bu bu la nit waxee doo ko tontu loolu dina métti da ngay wër ay jàmbaar yoo xam dañuy défendre mënu ma ah jëru ko yow defal lu baax rek ca nga nekk ci li nga war a nekk wax dëgg yàllam ah fonk naa la jàpp naa la ci moo tax jotaay bi tey bi ma ko waxee yàgg nga maa ay jotaay ba tey ji nag laa ne nag ma ñëw teew ci sa jotaay bii jàngale daal ndaw ñëpp ne leen politique mën na ko def bu ñu jël suñu bopp wala ñu ñuy nax du ñu dugal ci yoo xam ne kenn xamu ko du ñu génn ci système bi buñ génn mën nañ cee dugg la ñu war nekk ñu nekk ko bu ñu waree jaamu yàlla jàmm ko lu di ci def lu baax di ci wax lu baax lii mu def nii tey yaakaar naa ku nekk bëgg nga koo def kon bu ko defee dañ naan ñun ñëpp la ko defal dañ naan président sa Seck la ko defal dañ naan président Macky Sall la ko defal kon président Macky Sall bu amee ku mel ne moom fii ci département de Mbacké loolu yaakaar naa ñëpp war nañ cee sant ñun nag suñu ànd ak yéen li ñuy wax wax ko président sa Seck mu ñuy fàttali toujours di ñu wax ne lu ngeen gën a rataxal seen diggante ak wa APR rek dama ciy bég buñ boolee li nga xamanteni coalition Idy 2019 am na ko mu nekk 129000 voix ci département bi li coalition Benno Bokk yaakar am ci département bi yaakar na opposition kenn dootu ko tuddati fi ci département bi loolu mom lu leer la. ndax li kër jafe woon na Touba li muy def mu yag ba léegi. waaw waaw c'est la première fois. jigéen ñi nekk fi jigéen kenn musulena leen boole ci dara. muy jigéen ñu mag ñi muy ñu ndaw mi moom mii moo ñëw boole leen. moom moo ñëw boole nu ci ñun. ci moom laa gis ku nu jox ndomb ak tànk ngay sëtu Serigne Touba ndax moom santam bii sant mu nu lijjanti ci ay ay ay ay jàkkade wala wala wala ay bayaal. inshallah yalla yàlla ko yàlla lafal cat ku ko fekk daaru kudoos xam ni fa la dëkk loolu moy ndam Cheikh Abdou mii nak mention spéciale ndax amul lenn lu muy def te wowuma suma munta ñëw mako jox sama gant waye amul lenn lu muy def te wowuma ta xam na ne mbooloo moo topp suñu ginaaw ñi and ak mom di liggéeyal président Macky Sall fu ñu wo dinañ ko wuy inshallah ndax fulla ak fayda ak jom ngor lañu gis ci mom ndax nak nit ñi yag nañ leena fal te musuñu joxe dara ci dëkk bi musuñu cee bolé jigéen ñi. kon tey boo nu ci boolee dañ lay sant te di la gërëm di la jox sa wàccuwaay yi la yàlla jox yàlla nga yeggale sa di nga def lépp te ànd ko la téewu tëdd waaye si abdu ñun ñoo ngi sa kanam ñoo ngi sa ginnaaw say taalu ba lañ dawnu daaynu daaru xuddoos lañ dëkk duñu daw duñu buuse muy initiative boo xam ni euh, naka jekk si la nekk c'est un fédérateur di ko remercier bu baax si leadership bi mu am ak ci taxawaay bi mu am ci dëkk bi ngir boole parce que le président de la république loolu la soxla. à presque totalité de Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fi taxaw tey ci kër Cheikh Abdou Bali Gaynde Fatma loolu nag di taxawaay bu rafet boo xam ni ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm. boobaak léegi nag président ci boppam moo war a xool xam ne mbooloo mu bari la fi am mu am engagement mu ko bëgg wax dëgg yàlla li des nag mooy sur le plan politique ginnaaw daf ñuy évoluer évaluer sur le plan politique nag noonu joxee responsabilité politique. parce que nag wax dëgg yàlla saa yu ñëw fi déggoon naa ko daaw jéem mën a dañ ñoo naq ci biir ndox mi. bu ñu joxee xaaju lan jox ñee. danañ def loolu parce que taxuñu dara ñu def loolu. ak yenn responsable politique de la commune de Touba Mosquée ce qui est dû à ça c'est que le président Idrissa Seck ça fait de loolu doy ko mu def ma porte-parole adjoint du parti. lii nga def ci APR kenn su ko fee def grâce yow kenn mu sa dajal lu mel jigéen ñi kenn mu seenu boole ci dara nga ñëw boole ñëpp te ne neex na dangaa jóg say mbokk. kër góor ko sëñ Tuubaa sa kër di jaay góor képp jubóo na yow liñ bëgg mooy président Macky Sall mu gën ñoo jàppal suñu Seex Abdu te gën koo dooleel ndax kat mission bi nga ko santoon def na ko macha allah bàyyiwul dara ndax koo xam mi nga téye say nit jàppal la say nit jàppal kii say diina yi kenn du mer kenn du wax lu waay bëgg man ca bu dee jëfe dina la bëgg man ca bu dee jigéen ñun bëgg man ca suñu Seex Abdu fee toog bi suñu seet man damay wax yow yaay parti bi ku mu neex ak ku ko bañ kon ñu ngi lay sargalaat bu baax a baax a baax wante monsieur le ministre conseiller damay wax rek ni nañu dooleel parti bi dëgg la mais nañu dooleel jigéen ñi nañu dooleel jigéen ñi bu baax a baax tey ku nekk xam na ni liw bi liw bi ngelaw li te président Macky Sall moom mooy ngelaw li ndax moo waral tey nga woote lii dama bëgg sëriñ bi nga yaatal nga ni président mu yaatal ko ñëpp jariñu ndax lu kenn man ñaar ko ko dàq te lu ñaar man ñett ko ko dàq te lu ñoo fait la force. te nit it bu defee lu baax dafa jar a siiwal sànq ku jël kàddu ni militants yi nañ ci boole dëkkandoo yi dafa ne balaa ñuy jox kenn kër gu ko wër dana fa dugal lam fa war a dugal. sëriñu daara yi am nañ wàll ci lii néew yi doole yi am nañ wàll ci lii. jàpp naa ni bi ñu ko calculer on est à 947 familles te dañoo annoncé woon 500 man mi nga xam ni bokkoon naa ci ñi ngay recensé ak ñoom sëñ Modou Lo tey 947 familles dinañ leen jox. man nag boobu ba léegi seetlu bi ma def ci yow sëriñ bi vous ne cessez de monter en puissance loolu ñi daje fii ñëpp xam nañ ko. bi nga jëlee engagement le président dama lay jàppale yukkatoo ci arrière bis bu ne nga wanee lu bees te jéego bu bees boo xamante ne si kuy politique nangu na ko ci social ci dajale nit ñi ci mboolem jabootu président gi nga xam ne dañu nekkoon fii te ñenn ñi demoon sax ba toog nga fexe ba indiwaat leen loolu yëpp ci defaral ko la bokk. social bi ci nga njëkkee ndax man yàgg naa ci département bi di def politique depuis 2006 ba léegi waaye kilifa gu jënd. Euh, ambulance médicalisée defar ko ba mu baax nga yóbbu ko fa gën a mujj ci dëkk bi ne da nga leen koy jàppale maa koy soog a gis ci yow. kon sëriñ ñi ngi lay xamal ne la yoon wi rek a ngi nii mboolem ñii nga fi dajale ñëpp kenn ku ci nekk ragal naa ne bu doon maslaa moo xamante ni si njariñ rek la ñu ci bari mën nañoo déwee jaari feneen waaye commission lañ soxla te xam nañ ne am nga baat boobu. ndax it da ngaa def loo xam ne kat bari na ci projet yoo xam ne biñ koy def ci dëkk bi. donte yaa waaye bañ koy door xëy nga yëgoo ko waaye wala doonoo ci woon dara waaye dem nga ba topp ko ba xam programme ba xam bilan ba xam na mi doxee. visite de chantier bari na responsable yi nekk fii kenn amut fitu yëkkati saw dàll fii ne da ngay dem chantier Macky Sall yi di ko layal xalaatoo mel ni yow yaa ko fi mën a wax. te ba nga ko waxee fu wér nga ko teg ndax lépp ci ay kayit la nekk même bu dul moom moom mii nañ gëm ne képp ku mu mën a àndal man gëm naa ne man ci sama xalaat. du jaay askan wi du jaay département bi te ku mu teg loxo man man moom laay àndal. ndimbal lii dem ci ay jege ñaaleem waaye it dem ci daara yi ak ñenn ci askan wi yu nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw.